géej gi am na lu ci laxasu ba tax na nappkat yi nekk ci Sénégal euh, yuuxu nañ ko fu nekk nag euh, ginnaaw ba ñu duute woon baaraam euh, benn société bu nekkoon fële na ci diwaanu Saint-Louis ñu woowee si production ak beneen société boo xamante ne chinois yi ñoo koy ñoo ko ñoo ko moom ñu ko ñu leen di woowee Meicai xaw ma nan lañ koy waxee noonu ci chinois cette fois ci nag ñoo ngi duut baaraamu tuuma benn société bu nekk fii nii ci Dakar nee nañu daal dee def fraude ci li nga xamante ni moom moo di wàllum produit halieutique yi wàllum produit arietique yi ba tey rek Amina dañuy des ci journal Libération moom nag di wone rek maanaam diggante Niass ak Baba Diaw mu mel ni maanaam tey am na ñaari plainte yoo xamante ni fa ne jibee na fa ci diggante ki nga xamante ni moom moo nekk président assemblée moom mi nga xamante ni nag day faral di dox ci wàllum terrain yeeg kër yeeg ak yeneen ak yeneen Moustapha Niass nag mi ngi koy toppee benn terrain boo xamante ne nee na moom moo ko moom kii nii di Baba maanaam daal mu bëgg laxas mbirum tuuma waaye boobee plainte kii nii di Nafissatou Diop daal dina ci feeñ maître Nafissatou Diop mi xamante ni moom moo di notaire ba bañ ko woowee ca diwaanu gendarmerie nag wax na li nga xamante ni moom moo nekk ci biir ak lan la ko Baba Diaw waxoon ci terrain bi laataa ñu ciy sekk laataa ñu ciy sekk waaye nag dañuy desandi si wàllu politique rek mu mel ne nag nouvelle alliée pour le pouvoir journal bi nag xëy na fësal Macky Sall ndaa mel ne nag day annoncé Gloria si ci biir euh, mburu ak soow la ba tax na Thiès li ak marron beige daal dinañ fay jaxasoo lool waaye fële na la ca diwaanu ISEP bu jëm ñaajo nañ ko débb d'une valeur dafa mel ne maanaam dafa am beneen allié boo xamante ni day Macky daf ko annoncé waaw comme ni ko waxee rek dafa daal di annoncé beneen allié maanaam daal gën a dëggalaat euh, ki nga xamante moom moo di digganteem ak euh, Idrissa Seck ba mu demee Thiès war na ni moom ak Idrissa Seck benn lañu ndax ñi nga xamante ñoo toppoon ci ginnaaw Idrissa Seck doon ko jàppale démb presque ñoom ñoo wàcc euh, sur le terrain ñoo di jàppale ki nga xamante ni moom moo di suñu njiitum réew orange marron beige jamono ji nag moom moom moo nekk benn couleur bi nga xamante ni moom la idi di wuyoo Macky Sall di ko wuyoo ba tax na suñ njiitum réew ba mu taxawee ci otoom danoon woy mburoog soow comme ni ko këlew doon wooyee rek woykat bi doon waxee mburoog lem waaye moom nag nee na soow bi da ciy daal di ba mu gën a neex en tout cas affaire bi yemul woon foofu ndax am na ay affrontement yu baree baree baree bari yu amoon ci diwaanu Thiès boo jàllee ci beneen journal bi nañ ci yaatal waaw dinañ ci yaatal waaye ba tey rek dañuy desandi ci journal Le Populaire Seydi Gassama nag bu am si nag mooy wax rek di alerté moom nag li muy xam la rek jàpp loolu la wax nee na opposants yi mënuñoo nekk ennemi euh, dirigeants yi ndax à chaque fois rek politiciens yi des fois ñu amal ay communes yoo xamante euh, askan bi euh, duñ ci xam dara waaye nag ñi nga xamante ni moom la ñu mën a woowee pur opposant ak pur ennemi bu yi nekkul ñenn ñu dul ñi nga xamante ni ñoom ñoo di activistes yi ku ci mel ni Karim Xurum Xaq Guy Marius Sagna Dame Mbodj Clédor Sène ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni lim na leen jàpp na ne daal ñooñu ñoo dëgg-dëgg noonu politiciens yi. jàpp nañ ne loolu loolu noonu politiciens waaye ba tey dañuy seen saison la populaire rek si affaire ñaari fetti katu Wally muy Amady muy muy muy Amady Badiane ak Ameth Diouf ñoom ñaar dafa mel ni dañuy risqué lu si toll ak deux ans de prison dont six mois ferme. waaw mbir mi mujj naa am ampleur lool sax ci euh, soirée waalo Seck bi nga xamante ni moom la ñu tëggoon Ameth Diouf ak ki nga xamante ni moom moo di Amady Badiane nee nañu bu ñu moytuwul lekk dinañu tëdd lu toll ci deux ans de prison waaye six mois ferme lay doon ndax gis nañu li nga xamante ni moom la ñuy def askan bi booba tey kenn tegu ci seen euh, tànk le 6 juillet nag incha allah la ñuy xam li xew waaye tax na kii nii di seen euh, avocat bi maître. Abdoulaye Dialy nee na bu fekkante ni dañoo bëgg a ñoom ñaar li ñuy def nañu xool Euh, ci li nga xamante ni moom la Gris Bordeaux ak euh, nu ñu koy waxee sax ba booy defoon ci ay année te boobaag léegi kenn waxu ci woon. te boobaag léegi kenn waxu si ba tey rek si journal l'observateur de de de l'opération de tabaski mu mel ne nag entre financement approvisionnement et moom lañ dénk wàllum càmm gi dafa mel ni wax na si. weerub tabaski bu dikkatee rek mën nañ ni borom kër yu bari du ñu du nelawati ba tax na nag ministre bi dafa fas yéenee def ab sortie xoolaat naka la ñuy euh, bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di wàllum approvisionnement bi mbirum sécurité bi mbirum financement bi ak leen ak leneen na li nga xamante ni moom moo di prix wu yi ci marché bi. prix xar yi ci marché waaye dañuy desandi rek ci affaire li nga xamante ne mooy maanaam diggante diggante Audrey Bidjar nañ ko mën a waxee rek ak Souleymane Sidi Seck mu mel ne daal. les dessus euh, d'une histoire de viol présumé nañu ko mën a waxee maanaam doomu Yérim Seck bi. waaw waaw waaw comme ni nga ko waxee rek boobaak léegi nag ñoo ngi woon ci mbir mi doon sax nekkul mbir mu bees ba suñu joon yàlla tey jii nag dafa mel ni dañoo bëgg a ubbi waat sujet boobee daal di ci li nga xamante ni moom moo di jugement ba tey présumé viol la ñuy wax ndax leeragul wóoruñu ba xam moom moo violé am déet looloo war a journal bi daal di bind présumé viol ak lu ñu ci mënti am daal lañ jàpp ni loolee juge bi dina ko leeral. waaw trois trois arrestations deux blessés graves dont un dans mel ni nag mbirum inauguration ISEP bële sa Thiès daal andi woon na coow lu rëy loo xamante ne xew na fa euh, gis nañ ni nervi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di société civile bi am na ñu jot a tax na lu toll ci ñetti nit jamono ji ñuy waxee gër ñoo ngi en garde à bari te blessure la ñu am ak benn nit boo xamante ni moo ngi dans le coma donte beneen journal bi sax dani kooku da cee ñàkk bakkanam journalu l'observateur daani moo ngi dans le en tout cas nag doy na waar parce que élection wala yoone moom jarul loolu nervi yi tamit nañ xoolaat seen bopp rek xam ne ci askan bi lañ bokk parce que dèjà ñoom duñu ay militaire duñu ay policier duñ ay gendarme ay civil la rek yu ñuy recruter jox leen ay yaakaar naa ne nañ si bàyyi xel bu baax a baax dañuy jàll si journal suñu lamb moom nag super ndaje bi la xëy fësal rek fële ci Ibamar bi moo war a nekk seen deuxième face to face ndax première bi dafa raté woon tey nag Pape Abdou Fall di ko amalee fële na la ca diwaanu Ibamar ba tax nag beneen bu nit ñi doon xaar niki dimanche bi la war a am diggante Gris 2 ak Abdou Diouf yaakaar naa ne nag ki nga xamante ni rek moo di moo di moo di Ngagne wax na si waaw jàpp na ni daal c'est l'avenir du Fassois qui est en jeu bu moytuwul rek bu deful attention ba ñàkk li nga xamante ni moom moo di combat boobee dina gën a suuxeel li nga xamante ni moom moo di euh, club bu Fass donc na def attention bu baax a baax te xam ni combat bi combaam la war a doon looloo tax kii nii di Arona Sall jàpp na ni Abdou juuf ak Gris moom combat bu nar a metti la combat bu nar a tàng la waaye combat bu nar a neex la tamit général bu Fass ak Qualify 2 dafa mel ni nag maanaam tey test la bu mag a mag a mag pour Qualify waaw loolu la ñu wax nee nañu daal test bu mag a mag a mag la ci Qualify euh, ba tax na samedi bii nii lay doore incha allah su ma juum mu nar nekk moom tamit combat bu neex. assurance bu mbuur moom ginnaaw bi mu jógee si ki nga xamante ni rek moo di Gambien Sa Thiès daal la bëgg a bëreel. Sa Thiès la bëgg a bëreel gis na ni Sa Thiès jamono ji natt na ko ba euh, am la en tout cas loolu dañuy bàyyi ñi nga xamante ne ñoo gën a xam la ko laajee sax nga ma ko ba xam combat la. un moom la yàlla moom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm parce que démb nag ñu bëri woo nañ ma Amina Ndiaye di ma laajte dama obligé sax jël benn vidéo liiru def ko statut yi parce que nit ñi nag des fois maanaam bu ñuy defati yenn yi maanaam nañuy vérifier information bi ba mu wóor Sa Cadior numéro bu mag ba moom la yàlla moom Sakho Dior 2 mu nga fi mu ngi si jàmm di ko ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram. waaw ña xam naa tur moom la ñu jaxase rek ba tax na saa Dior 1 nekkoon ci làmb ji moom tamit daal dina fi dëddoo di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jógee di mastawu ay mbokkam te di leen sigil ndigaale. te di leen sigil ndigaale ba tey rek Amina Ndiaye ci euh, journal Les Arènes la ñuy des rek si xalima grand suñu grand suñu doyen Abou Ndour moom Balla Gaye dafa mel ni jël ay ak Bombardier nee neena bu xeexee ak moom dina ko duma dina ko duma loolu la wax nee na dafa fas yéene duma Bombardier bis bu jéemee xeex ak moom donc li koy euh, li koy dimbali daal mooy mu daal di koy bàyyi rek mu gérer combat bi ni mu ko war a gérer daal di koy daan dem ñibbi waaye nag yemul foofu buukar venger Eumeu Sène leeral mbir yi diggante ak Gris Bordeaux dafa mel ni Balla Gaye nag am na ay objectif Amina waaw ginnaaw ba mu amee ñaari defet ci kanamu Eumeu Sène nag nee na dafa fas yéene venger wu ci moom wane ni Eumeu Sène mënu ko yàlla moo ñu woon mu daal di koy daan ñaari yoon waaye digganteem ak Gris Bordeaux nag fas yéene naa leeral mbir yi ba ñëpp xam ni euh, couronne bi mu jëloon ci moom doon lu woon ñàkk niñ koy waxee sax ñàkk a la woon daal. waaw en tout cas daal li leer ba leer daal nee na Modou Lo moom ñemewul taxaw si kanamam sax naan moom mooy roi des arènes kon dafa mel ni moom bu ko defee Balla Gaye nee na taxaw na pour weddi ko ndax am na fu mu jaaral nee na lamba ji moom bu bu atteindre âge am lay bàyyi donte ñi ñaa doon naan bu bu jeexalee ñeenti combat day bàyyi waaye moom nag andi na ay leeral nee na foog mu yegg foog mu motale âge âge bi nga xamante ne moo di âge de door a bàyyi waaw ku toog di gis Balla Gaye sax di nga xam ne Balla Gaye pareegul pour bàyyi laa mu da ciy a door sax amagu ko ci euh, donc leeralaan na bu baax a baax a baax tant que bi nga xamante ne moom la wax ne ku ko matal dootoo bëre moom Balla Gaye pareegul pour génn ci arène bi moo tax nag mu bëgg a ñeenti combat yi mu am avec la manière Amina Ndiaye kon yaakaar naa ne moom Balla Gaye moom fi toll nii daal am na ñeenti objectif yoo xamante ni daal dafa pare pour yéegale leen waaw ñeenti combat yooyu moom nee na avec la manière la koy gagné instant bi mi ngi teg ay système am ba daal di ci génn am ci li nga xamante ni moom moo di ndam ci ñeenti yëpp yaakaar naa leeral yi loolu la woon lii lañ leen indi doon seen xibaaru revue de presse yéen bokk internet BP ak te jaajëfal leen jaajëfal la yow Boucar Ndour ci àndaloon